ku nekk xam nañ Sénégal mi ngi ci jafe-jafe voilà yéen borom xam-xam yi yéen ñii jàng ñu ngi leen di ñaan ci seen kaw njàng moomu boole leen ci xereñ parce que xereñ lu manqué rek mun naa am lu luñ bëggut am fa nañ ci boole xereñ nañ ci boole xereñu xam nit ñi nañ ci boole xereñu xam ki jéng-jéngam fan la jëm lu mu bëgg ak lu muy wut yooyu yëpp nañ ko xam bu baax a baax ndax ñu mën kaa sóoraale buñ ko xamut mënuñ kaa buñ amut xereñ xam ko mën kaa sóoraale mën naa indi ay problème mën naa indi cin lu lakk mën naa indi cin lu lakk euh, yooyu yëpp mën na cee bàyyee ko te loolu yëpp bu boobaa ci euh, waxuma ne euh, sàggante nit ñi la waaye gàttañlu ci jottali xam-xam ci sensu xam-xam boo jottale xam-xam ci sensu man borom xam-xam laa vraiment yàq nga xam-xam yàq nga xam-xam bu boobaa boo jottale xam-xam jottale xam-xam parce que xam-xam la kenn moomu ko koo xam rek mu dem ay gars yi ñëwoon nañ fa barki dem dañuy dañuy dañuy def parti dañuy def ni ma ne ko lenn rek laa leen digal bu ngeen demee ci ni ñuy wax bu leen def professeur ci seen kaw wax leen ne ñun dañ leen a soxla waxtaan leen ak ñoom. laaj leen garab gii lan la lu muy laaj leen loolu ci loolu yëpp laaj leen ko bu ko defee ñoo xam ne ñii dañoo ñëw pour ñun dañoo ñëw pour xamanteeg ñun waaye ñëw def professeur ci seen kaw jox leen ay leçon rek dem oh, oh, oh. kenn du la faale kenn du la woteel euh, ñu ngi ñaan bu baax a baax yal na yàlla musal Sénégal ci lépp lu ragal lépp lu ñuy ragal yàlla bu ñu ko yàlla woon lépp lu ñu bëgg di ko xëcc lu baax pour Sénégal yal na ko yàlla teg ci loxo sénégalais yépp fuñ mën ci nekk ak kuñ mën ci doon buur kanu buur kanu bi ma fa mujjee dem Cheikh Tidiane ak man mu recevoir ñu waxtaanal ñu mu ne nag dama leen di wax sëriñ si ñaan leen de parce que àddina jii ma gis pexey nit mënu ci dara al fokk ñaan rek moo mun a musal ci àddina jii ma gis mu ne àddina ji mooy lan mu ne Kadhafi daf koo mus ñëw Nigéria digle ne naa leen tabaxal mosquée mu ne dig bi yàgg lool ma dem lii bi di seeti Kadhafi pour jumaa ji ba mu ñëwee Kadhafi téye na ma une semaine ci hôtel voilà hôtel yu baax yu kawe dangam ak dangam door ma recevoir bi ma recevoir huit heures ci suba ne ma kay ñu ànd nga seeti suma armée ñu ànd li ko dalee huit heures ba trois heures wala ba quatre heures mu di ma woon armem armem armem armem armem armem armem gis ne armem bi arab yu libyen yu tuuti ñoo ci nekk ñi ci des ñëpp ay étranger lañ ñi ci des ñëpp ay étranger lañ yooyu am na ci africain am na ci ay asiatique am na ci euh, euh, mercenaire fu mercenaire jógee rek mu ñëw dugal ci armée ba pare nag façon arme bu nekk am am nañ ko façon arme bu mbas Kadhafi dafa amoon xaalis bëgg jënd arme daan jënd arme arme bu nekk jënd na ko ci jamono boobu pour Libye waaye ñooñu yooko ko amee ñooñu nga xam ne duñu ay Libyens ay étranger la yu ñëwoon ay mercenaires la ñu leen di fay ñuy dem di xeexi mënuñu mercenaires yooyu nag bi Kadhafi dee dañoo tasaaroo ak armée yooyu ci biir Afrique te ay mercenaires rek te kenn xamul fu ñu nekk hmm? mu ne bon ñooñu ñaan yàlla rek mën ci ñoom dara yàlla musal ñu ci ñoom ñu tamit yal nañu yàlla musal ci ci ci tarxiis yal nañu yàlla musal ci daanu foo xam ne lor moo fa bàyyeekoo ci ñun yal yàlla yëkkati Sénégal barkeel Sénégal baaxal Sénégal def sénégalais muy doomi senegaale bëgg senegaal óolu Sénégal nangoo liggéey pour Sénégal kenn du boddi kenn kenn du sànni kenn ñu ñëpp ñoo ko bokk comme ni ko gars yi waxee ñu ñëpp ñoo ko moomandoo bon nag ñu ñëpp ñoo ko war a sàmm ñun ñëpp ñoo ko war a sàmm ñun ñëpp ñoo xam ne kenn génnu ci ñoo ko war a bokk ñun ñëpp jàppalante ci yal nañu ko yàlla may. ñu ngi gërëm monsieur le préfet ci teewaayam ak monsieur le maire ci seen teewaay rafetal nga rafetal ngeen rafetal ngeen itam ñi leen ñi ngeen fi présenté ñoom tamit yal na yàlla dëgëral leen yàlla yàlla may leen kattan ak doole ba Sénégal génn ci ay jafe-jafe jëm ci nu mu gën a yombee ak nu mu gën a neexee. nit fu mu toll war naa xelaat ne du moom kese war naa xelaat avenir war naa xalaat sëtëm yi ñëw ah fekk cinquante sëtëm yooyu di ñëw war na leen a xalaat bàyyi leen sukkandikuwaay boo surtout bu la yàlla mayee moyen yoo ko defee nga def ko pour bu ñëwee ñu óolu seen bopp ñu ñeme jàkkaarloo ak dund bi ak nu mënti mel